عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك ma xewoon nga dégg ko mu ne tey Sénégal nekkatul ci loxo réew mi kese tey FBI yaa ngi fi euh, euh, Nations Unies mën nañ dem sax ba joxe taqrir ne Sénégal amatul réewu jàmm ni ko ni ñi wutani bi loolu Sénégal ba am rek mooy ne loraange gi du wëtu ci sëriñ si dëkk fi wala sëriñ àdduna bi waaye dafay laal réew mi yëpp imaam alaaji abdoulaye daan wax radiallahu taala anhu xay fekk yaa ngi koy dégg rek mu cëggoo ci mooy ne lii na ci góorgóorlu bu baax taxawu Kaolack bàyyi leen xel te moom war naa xam ne waa Kaolack am na fu ñu ko teg ci élection yi passé yàggut kenn fàtteegu ko kon nag na góorgóorlu bu baax gën a bàyyi xelam ci waa Kaolack liñ soxla di ko jooy ci sécurité ci yeneen ak yeneen ak yeneen moom xam ne liñ ajoo yëpp na ci góorgóorlu taxaw ci ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defaral ko tawfiq di ko jaale moom personnel di ko jaale moom personnel xam na ni fii nii ci ëtt bii nga xam ne mooy ëtt Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahim Niass radiallahu taala anhu xam ne fii la daan génnee di naqarlu lépp lu naqadi lislaam waxtu buñ tooñaan lislaam fii la daan génnee fii la daan génnee tey jii fii leen taxaw njabooti baay gi génn leen taxaw fii njabooti sëñ Aliou gi njabooti muqaddam yëpp sëti Mawlana Cheikh al Islam yëpp sëti topp yëpp fii leen taxawoon léegi wax li leen naqadi ci bis bi nii nga xamante ni lu ñaaw la àdduna yëpp di ko ñaawlu ñu ngi wax ne yàlla bu fi li amati dee luñ xam la waaye façon bi xamee wuñ ko fii américain yàgg nañ fee ñëw mësuñ fee rey wala ñu rey leen suñ daan dem lycée wala joojo sax daan ama problème ak yenn sénégalais ci wàllu sport foofu noonu mujj gi imaam fii ci école am bi mahadul islami al afrique al amriki fii la leen defaral basketteur ba nga xamante ne duñ mën a génnati di dem feneen fii ci kër gi lépp luñ bëgg mu fekk leen fi daf ci ñoom njub daf ci ñoom lislaam li nga xam ne moom la nàmp ci Mawlana Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahima Niass radiyallahu tasaare ko ci àdduna bi nga xam ne mooy message bi nga xam ne moom mooy suñ message ñun Baay mbaax la amee Baay mbaax la santaane pour ñu tasaare kii su ñëwee xeñtu loolu ci Baay jugee Amérique bàyyi fa àdduna bàyyi fa lépp neex neexaay àdduna set hôpital yu baax ak lépp daw ñëw ba fii nii nga xamante ne ni yàlla rek a fi nekk sooy xool mbedd yu set fi ñu dëkkee yombut fa yow yaa ngi fa loolu yëpp ñu bàyyi ko ñëw fii nii nga xam ne kon yàlla rek moo leen ñor waaye lii war nañ ci bàyyi xel ba lii bu mu fa amati parce que lii su jàmmu amee ci la ñëpp mën a ñëw su jàmmu amul kenn du mën a ñëw te lislaam diinaay jàmmu la isla salaam bii firi jàmmu répété wu na ci alquran 33 fois wala 34 fois nga xam ne kon lislaam guerre bii firi fitna quatre fois rek la répété wu nga xam ne kon allahu yad'u ila daari salaam aljana ci boppam kër ak jàmmu la yàlla mu ñu indi fii jox ñu lislaam boo waxal boo xam ne inna diina inda allahi lislaam te képp ku bëgg yàlla di ko ut ci beneen yoon bu duwul lislaam yàlla du la ko nangu fa man yabtagi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa fi l axirati min al xaasirin bis yowmal qiyaama ci ñu perte ñu ngay bokk jàmm mooy suñ diina moom leen di oote mooy suñ message moom leen en ko ci àdduna bi yëpp di ñaan yàlla lislaam boobu yàlla na sax ci réew mi ak alquran ji nga xamante ne seen daara bii ñu jàpp ko tamit teguwul ci dëgg fii amul kenn ku jàng ci daara ji te mosuñ ko dóor wala ñu xeew ko bis te loolu yëpp du dara lu dul pour teg ko ci yoon Mawlana Cheikh al-Islam alxaaji Ibrahima Niass baayam mu Cheikh xaaji Abdoulaye Niass al Kabir moo ko jàngal imaam daan na ne te lu bëri ci saalam foofu su nit ñëwaan di ko jàmbatal ci wàll yu demee nii daan na wax bàyyi su daan na wax ne bala maa dee rek jigéen ñi ñëw sama néeg ne ma sama sëriñ daara bi dóor na sama doom waaye am na liggéey jëm bu nekkaan ci tànkam te daan wax tànkam woon la ko laa ji mooma jàngal te liggéey bi moo ma ko def kon na nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne mooy cosaan lépp lu baax wala alquran di dugg ci moom jibril xoj na ko xojati ko iqra maana bi qaari ba bu ñuy wax iqra bismi rabbika léegi xaaral ma soog cee tegu xam ne comme moo ànd ak loolu te képp ku nekk ci ñun bis ñëw na dam nga ci sa waajur wala ki nga xam mooy sa kilifa nekk ko bëgg naa génn ci daara ji wala nii wala nale man mii dal na ma dem naa ba ci daara ji sama sëriñ daara bi neexatuma ma dem ci imaam ne ko damaa bëgg ñëw ci daara naar bi mu ne comme commencé nga ba yegg fii rek mu ñëw léegi mu jeex loolu yëpp li ma ko ci dugaloon mooy caw yu métti la woon rek ma bëggoon a daw uti feneen te su ma demee feneen tamit caw yi laa rek waaw kon nag ñuy wax ne lii bu mu fi bàyyi sëriñ daara bi libéré ko ci lu gaaw mu dem ci ay taalibeem jubal leen soo leen ko téye foofu ci fi ngeen ko téye yéen ngi yàqal ay fukki fukki fukki yoo xam ne ñu waroon a jëriñu waroon a jub ci alxuraanam jooju noonu ñu leen di ñaan lii mu amati atte bala nga koo teg ci benn kaw nit da ko war a wax lii ma lay atte lan ak lan ak lan la alquran jaa ngi ni yàlla moo ñu ko at moo ñu moo ñu ko indil fii ne neen toggoo lépp amul benn bu mu ñu ci teggil te ñoom ñu ngi ni am fit am na yoo xam ne ñoo ko teggil seen bopp te kenn caw leen ci waroon nañu caw leen sàkkaana ñoom seen loi yoo xam ne ñu ngi koy voté fële dañoo a jël seen daara dajale leen ne leen lii ak lii ak lii ak a ci seen kaw ndax nangu ngeen ban moo leen ci arrangé ban moo leen ci arrangé wut ñu jéem a waxtaan discuter seet naka leen ciy dimbalante waaye toog rek oote say loi fële toog kii xamu ci dara nga toog rek di ko jàpp ci façon bii nii lii baaxut ñu leen ñaan leen ko arrêté buñ ko defati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala sant yàlla julli ci bi di wax inna lillahi wa di ñaan yàlla mu yónni ci musiba bii nga xam ne moo dal suñ kaw ñaan yàlla yal na ko fi yàlla emale mu doon loo xam ne nii lu metti la xam ne nii xamee xamuñ ko ñu dina xamuñ affaire rey surtout koo xam ne nii dafa bàyyi waajuram bàyyi bàyyi bàyyi famille bàyyi lépp jaayee ko lislaam ak diine ak Mawlana Cheikh Ibrahim bàyyi lépp ñëw pour rawale boppam ci diine ak lu baax ak xenc lu baax ñu def ko ñu jëf ju ñaaw ji dem bu dugg këram fekk ko fa rey ko rey bu ñaaw bii lii dafa ñaaw ñaaw goo xam ne nii ñu ngi koy métti lu fu métti am képp koo xam ne nii julli nga ñu duw julli sax daf leen métti wax ma ñi nga xam ne ñoo jullit ak ñi xam ne ñoo dëkk fii ci pays bi ñu ngi koy métti lu di ko naqarlu di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla na fi am yàlla na fi em lii yàlla na fi am yàlla bu mu fi amati di ko méttiloo di wax ne gouvernement Sénégal nañ jël seen matuwaay lépp loo xam ne nii waroon nañ ko cee wax Cheikh Mahi wax na ko jumaa ji suma doom alaaw di nii wax na ko kon li nga xam ne nii moom la ñuy ñaax rek mooy gouvernement Sénégal nañ jël seen matuwaay te li nga xam ne moo leen war ci pays bi ñu def ko taxaw taxaw temm def ko na amul sécurité dara amu fi benn sécurité amu fi ñu nekk ni kenn mënatut génn kenn mënatut dem fenn dimbale loolu taxaw sécurité am fii ci dëkk bi ak ci pays bi ak li ko wër nañ taxaw ci loolu lii dafa ñaaw dafa ñaaw kon ñu ngi ñaan gouvernement Sénégal nañ jéem a taxaw li nga xam ne ni mooy kaaraange ñu ut te rey gi dafa bëri gouvernement bi rey gi dafa bari Sénégal foo tourné rek rey rey waaye Medina fii lii mus fee am mu fi doog am ah surtout koo xam ne xale bu ndaw ah, jublu àddina àddinaam baax bëggu diine daay man ci jumaa Baye Mbaye jee fajar ñu fa dëkk nee nañ moom ak baayam ñoo koy ubbi fajar bu jot ñoom ñoo ubbi jumaa ji ñoo koy tëj kon ku mel noonu ñu def ko jëf ju ñaaw ji loolu gouvernement Sénégal war nañ cee taxaw waaw Médina yëpp dañoo waroon a jug man dama ne dañoo war a jug génn fii dox ba dem ba ville méttul la affaire bi naqarlu ko waaw ëpp na ko dañoo waroon a jug ay def li nga xam ne nii moom moo ñu war waaw bu ko defee gouvernement bi xam ne pays mer nañ. te gouvernement bi defaluñu dara taxawuñu tous fekkee sécurité rek la te mën nañu ko utal waxuma laak leneen kon duñ ko seen suñu kon ñu ngi xam ne ñoo dëkkee ci pays bi di doomi bi nañ war nañu jug taxaw takku lépp loo xam ne ni lu ñaaw la ñu jiitu ci bañ ko ba xam ne leneen lu fi mën a xew ñun balaa loolu ñun ñu gàttandu kon ñu ngi ñaan gouvernement bi nañ taxaw def li leen war balaa ñun ñu jël suñu matukaay taxaw defal ko suñu bopp kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na fi gëj li nga xam ne nii nag moo def ci wàll sëriñ daara yi ñu ngi ñaan ñu bàyyi ki nga xam ne moo leen jàpp kiy jàngale alquran di joxe xam-xam ñun ñu ceena nañu xeew nañu buñ bu nekk def nañu ko ci daara ji boobu bàyyeen fi suñ bàyyeen fi waaye kenn musta dem na nañ lu tax ñu xeew ñi boobu lu baax rek lañ bëgg ci ñu kon gouvernement Sénégal nañ bàyyi li nga xam ne alaaw di wax na ko léegi nii di jël ay nit di leen jël di leen tëj ci ay xeew woo xam ne nii dafa bañ jàng ñu bëgg koo def ci moom xam-xam bëgg koo dimbale mur mu baax mur mu jub kon loolu ñoom lañ ci bàyyi xel yii nii yu bon yii di def nii ñoom ci loolu lañ war a wax waaye du ay sëriñ daara bu dem fey ne li joxe xam-xam di jàngale ñu ñëw di ko xeew di ko yóbbu ñi def yi def yu ñaaw yi ñooñu lañ war a jàpp xeew ñooñu lañ war a dem jàpp ñooñu lañ war a xeew jaarale leen yoon waaye ku nekk ci daaraam téye daaraam ay taaliboor ku muy jàngale ñu ñëw di ko xeew di yóbbu kon ñoom xanaa kon ñu mbon yi ñoom loolu la ñuy dimbale ñu ngi ñaan yàlla li yàlla na fi gëj yàlla na fi gëj yàlla fi gëj fii bàyyi fi la daan toog di digga ñi ñu baax di wax ak ñoom lu baax di leen jubal kon ñu ngi au gouvernement Sénégal lépp loo xam ne mooy seen matuwaay nañ ko jël taxaw ci li nga xam ne ni mooy aar pay bi ak lu wér pay bi ñu def ko buñ ko defut doomi pay bi ñoom mun nañoo jël seen matuwaay def loolu gannaaw ñoom loolu loolu la war balaa ñun ñu jug du ko def ñoom nañ juglu def loolu ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant yëpp ñu ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm ci pays bi yàlla na yàlla saxal jàmm jàmm ji nga xam ne ni moom Mawlana Cheikh Ibrahim sampe ci pays bi yàlla na ko yàlla saxal baay bi kenn mënu koo yàq képp ku jug pour yàq ko da nga yàq wala doo ko fekkee kon ñun ñu nga xam ne ñoo fi dëkkee nañ góor góorlu te jéem a fexe li nga xam ne moom la bàyyi bëggoon ci pay bi daan ko def ci pay bi ñu nekk ci loolu jublu ci loolu ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ni asalaamaaleykum wa rahmatulah صلاة الله ثم السلام فطلع